coordonnateur des défenseurs de la république ay bés la boo xam ne muy tudd le 23 juin mu nekk journée bu nekk bés boo xam ne sénégalais yëpp dafa am lu ciy fàttaliku mooy dafa am bés boo xam ne sénégalais yëpp dañu jugoon pour Sénégal taxaw am lu ñu fiy bañ ñu bis ñu gis ne anniversaire am nag tey la te tey yàlla dogal mu am pandémie bi nga xam ne mu ngi muy Covid 19 ñun tam ñu doon woowaat sénégalais ci rassemblement bu mel noonu mooy ñu ñu takkuwaat taxaw ni ñu takkoo woon noonu pour mun a xeex. jëlee fi mbas mi nga xam ne moo fi nekk ñun nag lay défenseurs de la république ñun ñëpp ñu ngi dëkk Dakar bokk ci 19 communes yi di défendre la république moo tax tey nag ñu bëggoon wane ne aussi place bi nga xam ne mooy place euh, de la nation du place boo xam ne dañ fi war a nekk chaque jour rek pour des revendications wala di wala di woo ay coow ak i xuloo place la boo xam ne tamit Sénégal yëpp ñoo ko bokk kon ku si nekk war nga fi mën a ñëw wax sa xalaat ci nu mu gën a rafetee mais ak si nu gën a jekkee def nañ Fass Gueule Tapée Colobane dem Médina donc doon ñëwoon fii nag pour def su def def activité bi mooy def distanciation yi ñëpp taxaw ñu jël ay image waxtaan ak sénégalais yi mayu ñu ñu ko mais nangul nañ leen ko ndax fii fii ak foofu ba léegi benn la. ñu ngi doon distribuer ay gel yaa ngi koy gis ñu ngi distribuer ay ay ay masques depuis ce matin. donc loolu lañ nekk suba matin dem nañ ci marché yu bëri dem nañ marché Fass dem nañ marché Gueule Tapée ñu ngi woon Médina jaar nañ Tilène dem marché Colobane ça boo boo gisee ñu jël bés bii nii loolu moo ko waral parce que relancement bi ñu sentir moo tax ñu jël bés bi nga xam ne dafa bokk ci histoire Sénégal mooy le 23 juin pour mën a def appel sénégalais ñu gën a taxawaat ndax tey bu ñu xoolee lor bi mi ngi gën a yokku nit ñaa ngi gën a hôpital yi ñu ngi gën a bëri nit personnes infectées yi maanaam ñi ngi gën a ñëw te ñi nga xam ne ñi ngi ciy faatu yàlla mi ngi mi ngi gën a yokk kon tey waruñu relancer wu dañu war a gën takku taxaw pour mun a xeex ak feebar bi nga xam ne ñëw na fi mooy mooy mbas mi donc kon ñuy woote waat Sénégal yëpp nañ gën a taxaw xam ne dara xewagul te bloc rek lañ mën a def pour dindi ko te pour pour bloc boobu nag dañ ciy woo Sénégalais yëpp ñu bañ a relâché wu vraiment ñu gën a taxaw moo tax ñu mobiliser woo ndawu Ndakaaru yëpp ñu ñëw wane seen cofeel ci président mais wane seen cofeel ci LDR mooy les défenseurs de la République pour continuer di xeex xeex bi. la restriction de certaines mesures euh, qui sont jusque-là peut-être incomprises parce que on ne peut pas on ne peut pas continuer à vivre comme ça dans tout, tout aujourd'hui dans tout le monde dans tout le monde les les les, les mesures commencent à être levées alors maintenant il nous appartient à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités en respectant les consignes qui sont données par les, les, euh, les équipes euh, médicales en, et en respectant les règles de la distanciation sociale. C'est aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé donc de manifester, de, de, de, de choisir cette date du mois pour euh, distribuer des masques, de gels, n'est-ce pas, de sensibiliser et de demander à la population n'est-ce pas, de se, de, se, de, se, de, se, de se tenir prêt. Parce que la maladie ne nous a pas encore quittés, elle est toujours présente. Et aujourd'hui, nous avons tous observé que les gens sont en train d'observer un certain nombre de relâchements. Mais Inch'Allah, nous allons poser des actes à l'avenir.